lañ ci am mooy nan la ñuy fexe ba Ousmane Sonko du nekk candidat te loolu nag ku ko def war ngaa xool la nekk ca ginnaaw parce que def dara yomb na mais conséquence yi war nga ko mesurer. wala nga ah, fi fi ma bëgg a jëm pay ji nii par rapport ak son refus d'aller au procès. Ah. ñu bëri jàpp ne loolu teguwul ci yoon. Mhm. yéen nan lan lan ngeen ci war a taxawee da ngeen ko ci encouragé. Mhm. wala wala da ngeen koy jéem a delloosi comme ni ñu ko tàmm di gisee. Euh, ci ki ñi nga xam ne ñoo ñoo yor kaddu kaddu diine gi. waaw xam nga loolu stratégie la. stratégie kenn du ko wax ci télé ñun daal li ñu gëm. amuñu plan A amuñu plan B amuñu plan C benn plan lañu am mooy Ousmane Sonko. loolu c'est risqué commencé commencé ci Ousmane Sonko déglu ma daaneel commencé ci Ousmane Sonko yem ci Ousmane Sonko. parce que dañu gëm ni bu dee réew mi am na kenn ku fi war a nekk candidat du ñaari nit kenn nit la il s'appelle Macky Sall. il s'appelle Macky loolu d'accord c'est c'est ñu bëri nañ ne. Mhm. n'a pas le pour nekk euh, candidat en 2024. mais pour votre cas yéen mhm. mais de l'affaire l'opposant à Mame Mbaye Niang. très bien mën naa ci ñëw foofu ñu bëri dañoo jàpp ne. Mhm. vraiment kilifa kàddoom warul oyof maanaam warul wax lu mu foree ci pénc. kilifa warul taxawee noonu. kooku nga tudd léegi man du ma tudd turam. du ma tudd turam ndax la samay raison la nangul ma ko li ma gëm mooy rapport bi ñun ñëpp nangu nañ ni am na. ah waaw rapport bi am Birahim Seck moo ko bind ci livre ba Birahim Seck du du du como borom xam la jiite fii kuréel gu mag. Mhm. ci société civile respecté ko. mu bind rapport bi ci livre am léegi rapport boobu ki ko bind génne ay preuve wane ni rapport bi am na nga toog ba deux mille vingt deux amatoo benn foo jaar foo jafandiku. nga xëy sondiku ci benn wax boo xam ne nit wax na ko mu ngi mel ne tey nga sàcc ñu jàpp la nga naan police sama jàpp gendarmerie waaye gendarmerie jàpp waaye nangu nga ni sàcc nga. non jàpp boobu sax problème la na ko rapport boo indi baax. déglu rek loolu na ko dem laaj Birahim Seck mi ko a indi. non Ousmane Sonko la lan moo tax mu singili ci Ousmane Sonko kon nga xam ne ci complot ba tey ci lañ nekk ñun moo complot bi ñu bañ lépp lu xeeñ complot réew mi du ci ànd Birahim sekk mi ko def dëkk ci réew mi na dem porter plainte Birahim Seck. mais imam xam nga ma daaneel yow nga sàcc ñëpp xam ni sàcc nga. maam bay sàcc la. déglu rek. waxuma kenn sàcc la dama exemple laay joxe. te moom xam na ni man ragaluma wax kenn man su ma xamoon su ma leeroon ni sàcc la ma naan ko mais wóoruma. Hmm. dama ni. ki sàcc maam googu nag Ousmane Sonko ko. déglu rek ma ma daaneel maam ma daaneel Ousmane Sonko gënuma ko maandu man loolu laa gëm. xam man li ma gëm mooy nga sàcc ñëpp xam ni sàcc nga nga naan gendarmerie moo ma jàpp waaye police jàpp ma loolu ay caaxaan la yaa ngi dégg yooyu ñuy def yëpp benn objectif lañ ci jublu nan la ñuy coller motif Ousmane ko bu nekk candidat te loolu peuple bi d'accord ci doomu daara yi d'accorduñ ci sëriñ si maandu moom seen bopp d'accorduñ ci église bi.